Le Good Vibe, c'est tous les jours de 14h à 16h. lii la papa Jean wóor naa la man maa tiiqi mbiskit jalab ko mu daanu bong bong sëgg di jooy mën a baaje ko woo wilir sukkar balaa mburoo jeex tàndar ma ja lii neex yow di bee nu def lii leer na ma xam nga sama xol bi ni nga koy def lii neex na ma xolal siiri ni mu baaxee xol bi ni mu leere buy xuloo ba mu yàgg dafay sigiiree ma lu tax nga réew lu tax nga réew lu tax nga réew a réew a réew a réew a réew ma nopp ma lii moo tax ma réew mu nopp ma ba ma xam ko lii moo tax ma réew damay jëndal oor moo tax ma réew buy dem liggéeyi damay yóbbaale rek ma ci wetam di dawal ma koy xool mu neex a neex a neex a neex a neex a neex maa teex ci mbiskit dalax ko mu daanu bong bong sëgg di jooy ma napaaje ko woowi leen suukar balaa mburoo jee tàndar ma jaar li neex man di bàyyi sama xarit ngi yaaw sama yaay dóor ma ba tàyyi ngi yeneen nan ma suñu école ngir yaaw sama nit yépp ma bàyyi ngir maa ngi ñàkk sama alal ngir yaaw ñii di sunguf ñii di reen ngir yaaw maa tiqi mbis gi di dalax ko mu daanu bong bong sëgg di jooy ma nag waje ko wo wilir sukan bal je tandar majali neex amin tege je naru aji xam nga des fois da ngay gis ko xamanteni day nek ci kër and mhm. ak jëkkëram ba dara dul dara yalla dimbali jëkkër ji rek tuuti mhm. njëkke yeeg gore sam ko mhm. sonal ko lool léegi nak bu fekkente ni jëkkër ji mom bëgg na jabaram di jël alalam di ko defal. waaw japp jabaram reer ko dégg na ñu naan sa jabar yàqal way sa doom yaral waa nañ ñu bàyyi rek nañ bàyyi xalé ñu sey rek. Mhm. jëkkër reewal jabar ba mu dof. waye tamé du tee jabar respecté ñëk respecté goro mais nañ gën tam ci sëy yi. Mhm. yi nañ bàyyi ni ñu sey ak goro yi mhm. voilà. parce que c'est très important aussi tamé njëkk faaw ñu bàyyi xalé yu sey waaye bi bima ko génnee dafa am ben kilifa bu ma wo ma benn jaata man kaa mun ma xamoo ma demee dan ma jox sa numéro. Mhm. man ko waa ma man de sama kër presque six mois ak sama jabar nekkuñu ci jàmm mais sa woy bi dafa defar sama kër. dama bëgg nga fekk ma tel place. Mhm. ma teer la. mois ak jabaram. woy bii moo defar këram. morceau lu tax ma bii moo ko jubale ak jabaram. ok te nit ñi ñu ngi doon jàpp ni que morceau bi lu tax ma réew lu tax mbenn tuddee ko lu tax ma réew euh, te utiliser yeneen moo yoo xamante ne war na koo mën a jël. waaw xam nga mbenn moom réewul wax dëgg yàlla. loolu moom ñëpp xam nañu du bi laay wax. ok bi jëkkëram yàq. loolu la rek. mais loolu morceau bi tubaarkàlla la la dikkee. waaw inspiration bi nag euh, mi ngi ma dikke woon sama mooy woy boobu nga teg ci suuf muy Nogoy Diaw. Nogoy Diaw maa ngi mhm. koy nuyu de passage madame Moreau sama rakk ji. Mhm. man maa woy ngénte taaw ma Leila. ok mais à chaque fois bu ñuy def anniversaire bi daf may fekk en Europe ma dem tournée. Mhm. anniversaire bi fekk ma fi ñu toog noonu di foo ba si yàgg rek ma ne Basse Endo jëlee sa bongo nga defal ma. Mhm. billaay maa réew. dëgg oh, dëgg man maa réew fekk naa sama yaay di togg ceeb. ma ko sama papa di joy mooy na lay waxati Yo, wish boy Yelzio from Pour suivre mon actualité, bah, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là.